Touba TV mbokk internet yi macha allah ngi fi ci Foire Sepp euh, fi ci esplanade Stade Amadou bari cercle des éleveurs de la Balie ma neew taxaw ah, wa parcel ki la. alaykum salam wa rahmatullah sen Cissé Sénégal TV ñi ngi lay siyaar di lay delloo njukkal di kontaan ci dox bi ngeen dox bax si machallah macha dama dom euh, bay Chérif ñaan euh fekkon na la Saladam euh, nga exposé ma fi fekk la fi sep ma exposition bi ndax da nga génne won ay jeune mal ber ko muy benn production bo def ñew sedd ko éleveur yi mais ren dafa nok lolu nga defat da nga ñew fi exposer à gauche dafa dafa noog yow lolu tax ak dur nga jël ñaari bok li tax nga euh, defaat exposition mel noonu waaleykum salaam waaw senegal TV ñi ngi lay xiar euh, di la di la njukkal di lay wax rek euh, lolu li tax ñu def ko comme niñ ko defewon woon vraiment pour yombal gaay ñi parce que ñu bari man xam nga rek samay mbir comme man ñu bëri ñu ngi may dégg sama production ñi ngi dem fu nekk gars yi ñu ngi ciy gis ndam ñu ngi may dégg am na ñoo ñu ngi may dégg xamuñ fu ma nekk moo tax ma defale leen ko ba ma ko defee gis nga na ñi ci jëloon yëpp mujj nañ ay champion lañ am am ci ndam ma ne yoon bi ma def yombal indil leen ay affaire yu doy waar ñi ngi fii incha allah waaw mu ngi nekk ay jeune mal ak beneen euh, exposition tey dèjà balaa maa ñëw ci jeune yi fii gis naa fi ak quatre femelles nu demee waaw waaw kii gis nga ko macha allah ñu ngi fi indi ay ay ñu njëkkee maal bi gis nga maal allah sët maal la sax doomi surkër la macha allah yaayam yaayam euh, doomi muri sarix macha allah mi ngi nii gis nga ko ni mel ñu indi ko fii présenté ko gaañi waaw incha allah. ñaata mois. moom doomi surkër la am na vingt mois mi ngi ci 20 mois nii waaw. waaw yaayam. mi ngi kër ga doomi muri sarix la macha allah ànd ànd naa quatre femelles gis naa benn. waaw ànd ànd waaw benn benn ay ñaari yële tëng lañ. waaw ah, bu ñuul bi. waaw bopp bu ñuul bi. bopp bu ñuul bi doomi papa la. waaw macha allah gis nga ko. waaw doomi papa ba yaayam doomi sulker. bu ñuul bi. weex boobu. waaw tëdd moom itam doomi sulker la. yaayam doomi doo awañaan doomi doomi doomiraan mooy mooy mooy mooy maamam daal waaw. bi. waaw bii doomi la moom it kasaalika moom yaayam doomi joxe joxe la yaayam doomi joxe la. waaw gis nga ko ñu mooy ñu présenté leen ko. kële doomi papa la. teg bu ñuul waaw kële doomi papa la moo kii ñoo bokk nday waaw awañaan mooy yaayam. boole leen ci box bi. boole leen ci box bi moom euh, léegi tey loolu um, dafa da nga ci liggéey wala. waaw moom laa samp nii. xam nga comme papam dafa daanu. moom laa samp ni incha allah. waaw moom Cheikh Abdallah Cheikh Abdallah Niass la lañ ko tuddee waaw. léegi sëñ euh, waaw sëñ Mali. Ah, ah. ok sëñ Mali moom moom la wax ma indil ko gaañi. waaw sëñ Mali ma gis nga yu doy doomi sëtu bu euh, gaynde la. culub waaw culub bi doomi sëtu gaynde la. baayam mooy doomi gaynde yaayam doomi surker moom itam. moom am na am na mois waaw. Euh, bële na bu ñu rob bu ñuul waaw bële bii nii bu bu ñuul bi kook euh, doomi papa la kook doomi papa la yaayam doomi muri moo kii ñoo bokk ñoo bokk nday doomi muri saate waaw euh, mu ñaan moom am na léegi am na six mois quelque sept mois dal waaw bu weex bi ci tomb ñuul kii doomi alaaj tam la sëtu sëtu papa sëtu papa la doomi alaaj tam la yaayam yaayam doomi doomi kucca waaw kële doomi gaynde la moom kële doomi gaynde la waaw borom bu ñuul bi waaw yaay yaayam doomi awañaan doomi doomi eh, riyaan borom nopp bu ñuul bi kii kële non kële kële mooy des ah kii borom nopp bu ñuul mooy doomu gaynde mooy sëtu gaynde la waaw ah, borom baat doomi atomique la ñoom ñoom ñi euh, ay jeune la yoo xam ni tey euh, mën nañ ñi euh, yoo yoo war a génne la waaw waaw waaw yii moom mën naa leen génne incha allah waaw waaw ko ni la waaw seen mal yu doy waar la yoo xam ne daal am nañ sang bu baax am nañ nday am nañ baay xam naa ne ku ko jël moom incha allah da ci gis sa bopp bu ko yàlla dogalee incha allah léegi Chérif euh, liggéey fa la toll ginnaaw ba nga liggéeyee ci yan maal sax nga ñu mën a euh, euh, wax ñu mooy diggante papa ak sulkar ci nga liggéey waaw man vraiment ci baasu kii bi laa gën a liggéey waaw ah, man fàtte la waaw ci baasu xam naa ne Saloum bi daal laa gën a liggéey waaw parce que foofu maa ngi fekk doomi gaynde maa ngi fi doomi atomique maa ngi fekk sang yu bari daal moom vraiment papa papa ak Salika Abdou Abdou Fall bi mi ngi foofu ak suukat mi ngi foofu euh, albaraka yi am na fa doomi Océan ñi ngi foofu wax dëgg yàlla ba ba bëri na kii yu may liggéey daal wax dëgg yàlla macha allah. liggéey bu rafet kon exposition baa ngi nii xam naa du nag euh, éleveurs comme comme ni gars defoon parce que am na xar bu fi jóge woon dem euh, fële ca HLM muy Ousmane. waaw moom moo nga xam mooy Mara Dieng euh, champion boobu maa mi ngi koy liggéey lu rafet moom it macha allah kon kontaan nañu euh, liggéey bi rafet na euh, lii mooy élevage parce que tey boo judduloo ay champion da leen di génne ci foire yi ngay gisee. waaw waaw loolu la dëgg la vraiment man nit ñi ñu bëri may laajte même foire sax duutoon samay mbir mais comme ñi may jaay ay xar ñooy dem wax dëgg ñoo bëgg may génn. sama finance am nak faar yo xamna sax ñima jaay xar ñoy financer pour ma genn wa lool nak moo tax mo moo waral li ma ma genn pour exposer pour yombal gañ yi jaajëf ñoo xamni ne may dégg te xamuñ fan la nekk parce que man tooguma dal kon joxal gaay numéro beeg adresse wa waaw man maay Chérif Niang bergerie Mouhamad Daba Niang wa sama numéro sama numéro 77 608 56 88 ku ma ngi cambourine 2 mbedd Baboy bi rek inshallah kon kontaan ya ngeen jëfaay baxna na ñu lay